da njëkk a tàmbalee mooy xoolaat suñu ay loi waaw moment bi la du moment bi en tout cas nañu xoolaat suñu ay loi parce que lu am solo la loi bi dañ naan la loi 81 17 muy lu yàgg trop parce que 1981 yaakaar naa modification yi ñuy wax am na ci sax ay 89 la boobu ak léegi jamono di dox je pense que am nañu ñun ay loi yoo xam ne à la limite même dafa obsolète parce que bu may liir loi bi da ngay gis ñu ni la même financement venant de l'étranger parti waru ko jot te loolu tey bu fekkoon noonu la ñuy fonctionner dëgg parti yu bëri tas nañ leen parce que loi bi loolu la wax financement venant de l'étranger bu mënti doon même de sénégalais yu nekk étranger waroo ko jot loolu bu amoon parti pouvoir parti opposition yu bëri kon tas nañ leen d'abord beneen bi mooy tey bu ñu nee cas de figure yi ñu nekk di dund ci parti politique yi Sénégal moment bii ñi ngi décembre bilan financier yi parti yi war a déposer pour wane nan lañ doxee ci at bi mais dañuy waxante dëgg moment bii xam nañu ñun bu ko demoon di vérifier est-ce que am na benn parti bu def bilan financier wam at mi yaakaarumu ko donc li ñu respecté wul ci loi yi dafa bari te lii nag di problème boo xam ni xam nga ñun. un problème ça ne se pas dañ koy résoudre problème yi dañuy am impression ni dangay am benn problème di ko tegale di ko tegale parce que ñun bi ñuy nekk nekk xale lañ doon dégg Ablaye Wade ak Kadhafi financement wu Libye yi bañ lay wax ay armes yàgg na xale yu ndaw ñooy xaalis dafa jóge Libye pour financer ñu ñëw yëngal Sénégal pour nangam joxe loolu amoon na fi plus récemment Macky Sall jiñ nañ ko fi ay Ablaye Sall ay mbiru nangam convoqué ay affaire veyu ay tamit comme noonu ay affaire yu ñu jiñoon parti politique buy fonctionner lu jóge à l'étranger la lii tamit même chose bi lañ ci gisaat <coughs> kon mbir la moo xam ne ca jamonoy Wade ci jamonoy Macky Sall maanaam ñu ngi koy déggaat même chose te ñu war a dem vers les solutions même bu dee après les élections lañ ciy taxaw ñu wax ko lu am solo la parce que mi ngi yëngal àdduna parce que ingérence dafa am bu fekkee ingérence am na ci àdduna bi ba États-Unis ñuy toog diggu élection ñu naan seen élection baaxul parce que Russie dafa def ingérence ngay toog ay France ñu naan ndax Turquie dafa def ingérence mën na doon ci xaalis mun na doon ci leneen donc war nañu waxtaane fonctionnement wu parti politique yi dafa am solo parce que lu tax ñu war ko waxtaane mooy nit am xaalis rek def lu la neex am set milliards def nangam mais loolu warul demee noonu je suis désolé warul demee noonu parce que tey l'affaire Big Malion Lyon dont parle monsieur le ministre bi muy wax muy dëgg muy débat bu am Sarkozy am ci mise en accusation lan moo ko waral mais régulation adduna lu amul régula lu ñu dul réguler baaxul. adduna duñ jël dara rek bàyyi ko nii muy dem li tax Sarkozy dem ci yoon mooy vingt deux million d'euros vingt deux millions cinq cent d'euros boo ko weesoo mais mooy respecté woo compte campagne yi respecté woo fi mu war a yem barème bi. ñàkk ko respecté moo tax ñu yóbbu ko ci yoon bu fekkee dañ nañ ubbi ku am xaalis rek mën ngaa def li la neex mais porte ouverte la à ci lu nekk te loolu baaxul parce que du affaire bi du question que ni boo mënee capter ji façon xaalis bu mu doon ak nu mu mën a duggee noonu warul demee noonu dëkk yu mag yi looloo tax ñuy ñuy am plafond plafond boobu moo tax Sarkozy wuy ji ñun tey bu nit jëlee cent milliards def ko ci campagne mais ana ban loi moo ni Déthié Fall tant de milliards la war a yam ci campagne ban loi moo ko wax amul boo demee France tey xam nga ni Sarkozy lu tax ñu jàpp ko mooy dañ ni boo weesoo vingt deux million virgule cinq cent vingt deux million d'euros cinq cent boo ko weesoo dañ lay woo ci yoon te yooyu war nañ dem ba suñu suñu suñu suñu yoon egg foofu beneen bi nag mooy mooy présomption d'innocence dans ce pays mais mais mais politique yi ñoom ñàkk koo respecté dana tax ñoom ñëpp danañ gàkk muy pouvoir muy opposition parce que ay nit dafa war am gentleman agreement loo xamante ni du xëppante acide su ma la mënee yàq yàq ma soo ma mënee yàq yàq ma mooy mujj gi muy pouvoir muy opposition ku nekk da ngay jël sa nit rek xëy kole ko tant de milliards yaa ko sàcc y' a pas de présomption d' innocence rek nit ñi commencé ko def waaye taf la milliards yooyu c' est fini mu doon loo xam ne da lay topp ba abadan te à chaque fois presque du leer parce que wax naa fii les chantiers de Thiès de Idrissa fan la mujjee mais fii les six milliards de Taïwan pour Macky Sall fan la mujjee mais fii leneen ak leneen da ngay gis ñuy jiiñ nit loo xamante ni à chaque fois li ñu koy jiiñ du am ba opposition bii taxaw tey les preuves sur Mame Mbaye Niang ñun ñëpp kenn gisu ko mais ñoom it lii ñuy waxaat tey preuve pour Ousmane Sonko mais kan moo ci gis début de preuve wala lu ñuy kële donc la présomption d'innocence presque existé wu fi damay mere daal Bouba Ndour rek ma créer benn genre scandale rek tapp ko buuba sans preuve mu topp ko presque carrière am yépp ñu mën a xëy léegi jël mur yi taf ci ni diw sàcc la diw sàcc la diw sàcc je pense que loolu lu ñu war a respecter la mais la loi war na egg ci ñu am ñu réguler ñu xam même bu nit di dem campagne ñaata la war a respecter ñaata la war a yem mu am plafond fi may daaneel nag mhm. mooy suñu yaay ki ne la euh, la diva mhm. yàlla dafa dogal ma jot ko téléphone bi ñuy dugg si mu leen di nuyu mu ni day seetaan jàkkaarloo mhm. waaw suñu suñu suñu yaay mère Ndeye Thiam Kumba jàngaan paas ma ko ñu ngi lay nuyu maman ki ne bu baax on entre dans le vif du sujet